ndaxte dañoo jëm bis boo xam ne bi bis bu rëy la ci yoonu murit te euh, sëriñ bi santaane ci ñëpp di ko ci santale yàlla ba tax na hôpital bi itam ñi nga xam ne ñooy ñëw fii ci biir màggal bi bëgg bu ñu sañoon bu ñu ñëwee fii ci hôpital bi am ay jafe-jafe wér-gu-yaram ñu taxaw ci ba mu mat sëkk loolu moo tax ñu dogal juróomi fan yoo xam ne bi ñaari fan yi jiitu màggal bi ak bisu màggal bi ak ñaari fan yi topp ci màggal gi képp koo xam ne fii da nga ñëwoon màggal gi wala am ay jafe jafe yaram ñu jàllale la fii ci hôpital bi fexe ba faj la ci wàllu consultation bu dee ay rajo la laaj ñu def la rajo su laajee itam ay analyse wala opération ñu defal la ko bu laajee ay garab tam te mu am fi ñu jox la garab yooyu te doo ci fay dara mu juróomi fan yoo xam ne bii dañ koy def ay consultation médicale gratuite euh, loolu nag pour mën a nekk am na ay kuréel yu ñu tënk yu ñu tëral fii ci biir hôpital bi benn bi kuréel la boo xam ne dafa lëkkale docteur yi faj ci biir hôpital bi ñoom ñuy saytu ni ñuy defee garde yi ak ni ñuy doxalee mbir faj ba nga xam ne bi képp ku ñëw ñu mën laa euh, faj am na tam beneen kuréel boo xam ne bii waa administration ñoo koy féetewoo ñooñu ñooy toppatoo li nga xam ne moo jëm ci wàllu xéewal yi moo jëm ci wàllu dëkk euh, ni ñuy dalale gan yi ndaxte am na ay gan yoo xam ne bi ay fajkat lañu yu jege Dakar ak ci yeneen gox ci Sénégal yoo xam ne bi dañuy ñëw jàppale si hôpital bi ci liggéey bi nga xam ne moom la liggéey kon ñooñu ñëpp dañuy boole liggéey bi lëkkaloo pour que euh, képp koo xam ne kii euh, suñu borom dafa dogal bi nga ñëwee ci biir màggal gi nga am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram indi la fii ci hôpital bi ñu mën a fexe ba def ci suñu kéemtalaay kàttan ci jëm koo saafara ginnaaw bu Euh, dañuy tënk rek euh, li nga xam ni maanaam at ngi nii wala at a genn wàll ñu ngi koy liggéey ci biir hôpital bi mu jëm ci euh, fexe ba ñi nga xam ne ñooy ñëw fii maanaam ñu yokk di leen taxaw yokk di leen déglu fexe itam ba faj mi leen di faj mu nekk faj moo xam ne faj mu ci ayib la ndaxte dafa nekk bërëb boo xam ne bii bërëb bu yaakaaru la bërëb boo xam ne bii nit ñi dañ ci am yaakaar te di ko di ci ñëw ndax li koy firndeel mooy dañuy xayma li ñuy def daaw ci atum deux mille vingt ak li ñu def ci juróom-benn weer yi nga xam ne mooy weetu muy janvier ba juin dañoo seetlu ni maanaam lii ñëw ci hôpital bi lim bi gën na yokk ci fànn yëpp ci wàllu consultation ci wàllu hospitalisation ci wàllu même opération ak ñi juddoog yooyu muy accouchement yooyu yëpp dañoo yokku boo xoolee sax poche deret yi ñuy joxe itam poche yi tam yokku na boo demee ci centre dialyse bi itam maanaam ñi nga xam ne ñoom lañuy euh, defal ay dialyse ñooñu tamit seen euh, lim dafa yokku bi nit ñi am nañ yaakaar ci moom te wóolu nañ ko li muy am am ay jafe-jafe léeg-léeg ci wàllu paj meeg yu demee noonu wala ci wàllu ak accueil beeg yooyu ñi ngi nit ñi quand ñi ngi ñëw te loolu itam liggéey boobu ñuy liggéey jural nañu euh, ñu fexe ba li ñuy waxoon dañ koy wut ci wàllu xaalis pour am ko ci biir hôpital bi loolu am nañ ko te biñ ko amee itam jëmal nañ ko ci ay dépenses yoo xam ne dafa jëmaat ci askan bi ndaxte li ñuy liggéey muy euh, xaalis bi nga xam ne moo ciy génne dafa am ñetti pàcc yu muy jëm benn bi mi ngi jëm ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo fi liggéey waaye benn bi tam mi ngi jëm ci biir hôpital bi parce que maanaam nekkin wi ci biir hôpital bi daf ñoo soxal ba nga xam te ne bii kenn ku nekk boo dee faj wala yow nga nekk malaat fi ngay nekk di fa tëdd ñu fexe ba ñoŋal ko loolu moo waral ñu def ay liggéey di def ay jënd ay climatiseur di jënd ay mobilier de bureau di jëm a tabaxaat di defar ay peinture di defar ay carrelage di fexe ba muy set pour que nit ñi bu ñëwee mën nekk ci ay anam yu rafet loolu tam mën nañu xayma ni ci euh, at mi weesu muy deux mille vingt et un daanaka euh, ñaar ñaari ñaari téeméeri million ak juróom fukk ak juróom jël nañ ko ci xaalis bi ñuy waroon a jël ci fonctionnement bi nal ko pour def ci ay investissement moo waral ñu mën a jënd ay matériel médical jënd ak aussi yeneen équipement yoo xam ni moo ànd ak ñoom pour wàllu liggéey bi gis nañ tam ni euh, dépense yi nga xam ne moom la ñu waroon def jëmale ko ci wàllu personnel beeg yooyu ñu ngi koy jéem a fexe di ko saytu ba mu nekk dépense yoo xam ne yu maîtrise lay doon bu loolu waaye weesoo tam am na yeneen activités yu jëm ci maintenance parce que ku ne hôpital tam di nga wax maintenance maanaam bagage yi fi nekk ak machine yi fi nekk su ñu fexe ba saytoo leen waaye ñun suñu taxawaay mooy fexe ba machine yëpp di dox loolu moo waral ñu tëral ay contrat de maintenance ak ñoo xam ne ñoo nekk Dakar ci saytu machine yooyu ñaari weer wala ñetti weer yu nekk ñëw bu ñëwee saytu ko xool ba xam ndax mi ngi doxam déet te su ñu jéem a ay pexe gaaw réparé ko pour que nit mën koo jëriñoo ci wàllu hygiène ak sécurité maanaam cet gi tam ak kaaraange gi loolu tam ay jéego yu rëy am na ci ndaxte fexe nañ ba jéem def ci hôpital bi ay carreaux ak ay pavage def ci ay fleurs pour euh, pour que nit ñi maanaam gën a nekk nekkin wu rafet ci biir hôpital bi. boo demee tam ci service social li ci mën a tënk mooy hôpital bi maanaam bari na ay nit ñu néew doole ñu muy li ndaxte dañoo xam ni dëkk bi ñu nekk dëkku euh, ndimbalante la dëkku daara la. te nit ñi tam am na ñu bari ñoo xam ne bi seen loxo jot suñu ginnaaw ba tax na boo xaymaa ci atum deux mille vingt et un daanaka lu ëpp ñaari junniy nit ñëw nañ di sàkku ñu wàññi leen seenum paj wala ñu woyofal ko ba nga xam ne bii nañ ko mën a supporté te loolu tam fexe na ñu def ko ba biñ koy xayma daanaka yegg na ci juróom-ñetti fukki millions yoo xam ne bi dépense nañ ko ci loolu kon loolu day firndeel ni maanaam hôpital bi ñu ngi jéem a jàppale askan wi ci seen wàllu fayoor ci aussi li nga xam ne moom la ñu fa war a fay mën a jot ci ci paj mi loolu ñu def nag ci atum deux mille vingt et boo ko xaymaa tam ci atum deux mille vingt deux maanaam juróom-benn weer yi nga xam ne moo tàmbali woon janvier ba juin daanaka euh, portale bi noonu lay toll noonu noonu lay melaat maanaam activité yi ñu def deux mille vingt et moom la ñuy continuer di ko def actuellement deux mille vingt deux kon daal ci gàttal loolu la ñu wax dañ koy tënk jëm leen ko xamal pour que mu leer ci bopp askan wi te di wax ni ñi ngi gën a euh, remercier ñi nga xam ne ñooy journalistes yi parce que li ñuy def tam bu koy def fii. te ñu ngi koy defal xamuñu ko du jariñ lu bari te yéen yéen a fexe ba nit ñi mën a xam li ñu def ci biir hôpital bi kon nag am nañu ñu ngi leen di sant sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem jërë ngeen jëf